mbay xam naa ni falhaadu masuuloo alaaji usman kan jërëjëf jërëjëf kan fakkuloo seydi mbay si mi la mam abudu kan dénkoon falhaadu masuuloo kan am nga kóllëre toppuloo yow aduna ak yëngoom ba fàtte mbay xam nga ni fan la du ma suolo Alaaji Usmaan Kan jërëjëf kan fakkuloo Seydi Mbay Si mi la mam abdu kan dénkoon fan la du ma suolo Alaaji luy mbiram jàkkaak jàng alxuraan ak jàngale Sine Saalum ñépp wax loolu Alaaji Usmaan jërëjëf kan jëf kan fakuloo Seydi Mbay Si mi la maam Abdu kan dénkoon fal Haaju Masuur mooy ndi jaayu Mustafa ak Mansoor ak Cheikh yaay jaayu Mustafa ak Mansour ak Cheikh Ndiaye Ndiaye Moustapha yal na ru gi sell ni taw ñoo ngi ñaan looloo alaaji Usmaan kan jërëjëf kan fakuloo saydi mbay si mi la man abdu kan dénkoon fal masuur